cher internautes ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu saa su ne seen ànd ak ñun ak seen site d'information bi di syndicalisme point net nes gis ñu dikk ak ci xibaar yi li ci gën a fës dooree ak wàllum mbëkk mi nag brigade gendarmerie bu Kafountine na ñu ngi tolloon ci téeméer ak ñetti nit yoo xamante ni ñoo nekkoon ci gaaluk looco googee nag ñoom nang leen di arrêté ak ñi doon dawal ak boobu les gaal ci jamono ji nag ñoo ngi ci xibaar yi nag gannaaw ba ñu ko jot jotalee ñii di kilifa administratif yi faree ci boobule gox ñoom nag dem nañ ca bërëb ya ngir rek saytu anam mbir moomee naka la demee ab enquête nag ubbi nañ ko si ngir rek gën a leeral mbir mi ci loolee nga xamante ni moo ngi bëggoon a am di ay gone yu jëloon gaal bëgg a dem foofee ca bitim réew wax ci leneen ci wàccaay bi nga xamante ni ñoo ngi ko war a am rek ci gàmmuk international bu Medina na ab réunion nag daal dinañ koy amal niki tey jii ca ministère de l'intérieur yéene ko boobu ndaje rek moo di fexe rek bo jël ay matuwaay ngir rek gàmmu googee ñu amal ci anam yi nga moo gën a rafet délégation bi nga xamante ni mu nga jógee ca Medina Baye ka ko jiite di porte parole Cheikh Mahi Cissé bi nag seenu bëgg-bëgg ci kanamu ministre bii ni ki ngi ci wàllum wàccaayu màggaluk wala sax gàmmuk Medina Baye boobee nag ci teewaayu porte parole bu Medina Baye Cheikh ak gouverneur bu Kaolack des yi nga xamante ñoo jëm ci organisme étatique ak ulet bu Antoine Félix Diome ministre de l'intérieur Alioune Badara Mbengue gouverneur bu Kaolack ñoom ñëpp nag teewee ndaje moomu nag ñu daal dee euh, indi seen engagement ci li nga xamante ni si moo jëm ci wàccaayu Medina Baye gàmmu googee ñu fas yéene amal lu tollook nag huit cent daanu ko daal di indi foofee nag ca diwaanu Kaolack waaye itam ay salle de vidéo ngir rek fexe boo gën a saytu kaaraange gi waaye ñi nga xamante ni moo di waa compagnie du groupement mobile d'intervention daanu ñëw rek fukki fan laata ñuy amal boobu le gàmmo su defee nag ñu mën a gën a saytu rek institution bi nga xamante moom la ñu daal di représenté foofee wax ne nag dina déployer lu tolloo ko juróomi camion vidange su ko defee nag rotation daanu ko def ci bëccëg bu ne gan ñu ngi amal li nga xamante ni moo di gàmmo gi waaye itam fanweeri gaanuwaay yoo ni daanu ko samp ci gërëb gu sell boobee di Medina Baye ak quartier yoo ko daal wër ñetti fan laataa ñuy amal gàmmo gi mu nekk ci yenn ci dogal yoo xamante ni daal dinañ ko jël ngir rek waaj gàmmok international bu Medina Baye Niass Kaolack ñu wax ci wàllum mbirum njaakeen nag Pape Massata Diack nag mi nga xamante ni daal dinay joxoñ baaraamu tuuma ki nga xamante ni si moo di waa France gannaaw nag ba ñu ne moom papam ji Lamine Diack nag dañ ko fa am lenn ci wàllum corruption boo xamante ni dañ ko fay jiñ gannaaw bi nga xamante ni mu nekkoon président bu I2AF moom nag mu devenu World Athletic nee na daal dafa dal jot ay commission occulte bu tolloo ko million millions de dollars ci Amérique euh, américain moom nag euh, gannaaw bi nga xamante ni si nee na ñu ngi amal championnat du monde d' athlétisme 2014 foofee ca Qatar euh, suñu sukkandikoo nag ci xibaar ba mu daal di fësal ci page Twitter am nag Pape Massata Dia xam ne nag justice française mooy jéem a rek tilimal deru papaam jooje ak enquête bu nga xamante ni dal na koy tàmbali ni ki juróomi at ak léegi waaye Lamine Diack di papam amut lenn loo xamante ni si laale na ko ci attribution di championnat Lamine Diack nag intervenu gannaaw bi nga xamante ni si ñoo ngi doon amal ay phase de négociation waaye itam amul lenn loo xamante ni laale na ko ci boobule mbir mu jëm ci ay contrat maanaam daal bépp tuuma bi nga xamante ni nga caat nañ ko ci papaam di Lamine Diack doomam di Massata Diack daal dina koy teggi ba mu set wecc wax ci tolluwaayu mbas mi fan yi nag gis nañu ne ñu ko tàmbali naa wàcc bu baax a baax ndax niki tey ji ñeenti cas rek la ñu gis ñu positif amut benn cas contact patients guéri kat yi ñoom ay cas communautaire la ñu 10 cas grave la ñu gis ci jamono ji amut kenn koo xamante ne daal ñàkk na seen bakkan ci mbir mi Sénégal nag ba mu dooree ak léegi lu tollook 1860 ñàkk nañ seenu bakkan 73 806 ñoo laale ak mbas mi 57 nag képp ñoo nekk ci lalu l'hôpital yi ñuy saytu mu doon ab deltu ginnaaw boo xamante nemeeku nañ ko ci mbasum covid tukkee ci waa ministère de la santé et de l'action sociale addu jëmale ci wàllum njàng ak njàngale nag dambo ci gannaaw nag bi nga xamante ni mooy secrétaire général du cadre unitaire du syndicat de l' enseignement moyen et du secondaire CUSEMS authentique nag wax ne nag di ñaawlu anam yi nga xamante ni noonu la ñu recruter 5000 enseignants yi jàpp ne daal amul dara loo xamante ni tegu na si yoon waaye itam demande nag ci citoyen ñu agir nag plus vite ci euh, njuumte yooyu wala sax yenn ci euh, magu yi nga xamante ni am na ci waaye nag bu ñu sukkandikoo ci sawru seen daal dina koy weddi ba mu set wecc secrétaire général bu syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal daal dina si indi ay précisions yu leer xam ne nag loolee nag bëri na coow lool lu jëm ci wàllum recrutement 5000 enseignants yi waaye nag lu si mënti doon nag booy wax rek na nga wax li nga xamante ni mooy dëgg ci askanu Sénégal ne daal di li dàmbooj di wax ak yeneen ci syndicalisme ay nar kese la amul dara loo xamante ni dëgg la si ne nag am na loo xamante ni si rus na ko wax ak ñoom waaye nag jarut ñu yàkkamti ki rek di wax ak li nga xamante ni moo di amul jàppale niki ci émission bi nga xamante ni doon def ak suñu naataango yi jàngeen jëf mbokk ci safo bi ngeen safo seen site d'information di syndicalisme net lii la amoon yéen yeggaleen ko ci xibaar dig daje ëllëg ci beneen jotaay xibaar fii boobu ñu bàyyi leen ngeen woy ak suñu programme jàngeen jëf